ci cadre cas d'école bu ñuy amal ñaari weer wu ne CORED daal dina daje bi la yoon ngir waxtaanee ci naka la taskatu xibaar bi nar traité li ñuy wax fait divers Mamadou Thior di président wu CORED di ci aar. taskatu boo fekkee nit muy rend nit du euh, yow yaa war a wax ne moom moom moo ko def loolu cëru àttekat àttekat yi la magistrat yi tey boole nañ leen ci waxtaan bi ñu gindi ñu si li nga xam ne moom moo war a nekk suñ taxawaay parce que même na ngay waxee mbir mi lu xew ay affaire sàcc ci doom am na noo xam noonu lañ ko waxee suñu métier bi doone dañu sàcc doom donc euh, yooyu yëpp loolu lañ doon gindi nit ñi ñu gën euh, xam ne affaire fait divers lu am solo suñu métier parce que dañ fait divers boo ko déggee dafa mel ni dañ ko soofantal. Daouda Mine di journaliste bi dafa war a am rigueur ak responsabilité. fait divers dafa nekk lu complexe lu nga xamante ne dañoo am habitude di ko ñàkkal fayda au Sénégal et pourtant dafa nekk lu nga xamante ne ñàkkul fayda te waruñu ko ñàkkal fayda égal rigueur lay a jëlee information bu nga xamante ne population bi biñ koy destinel duñ ci jëlee njariñ secrétaire général de l'union des magistrats du Sénégal di Youssoufa Ndiaye wax ni yoon teg na ay charte ci ndoddu journaliste bi ngir mu joxe ay xibaar te dara du ko ci fekk. ne sañ ngaa wax ni nga xalaatee sañ nga ko waxee fi nga ko bëgg waxee bu loolu amee am na tamit yeneen droit yoo xam ne charte fondamentale réew mi maanaam constitution bi daf ko teg pour aussi respecter droit wu ñi ne ñoom la information yooyu di concerné donc bu ko defee ki nga xam ne moom mooy traité information muy journaliste bi non seulement war na

information bi. rek di xamle mi ngi saytu tamit di teg ay daan ci bépp taskatu xibaar bu wàcc yoon ci nu muy traité information wam.